doy na trop jërëjëf jërëjëf jërëjëf xale bi waaye nga lu neex loo xamante ni nii duñu ko wayil cuune duñu ko wayal ñambar duñu ko wayal ko yaafuus duñu ko wayal koo xamante ni nii day tëdd ba biddanti kii ngeen seen nii ah mooy sunu président de la république de tous les sénégalais di koo xamante nii mi ngi dox ci bànni xur di koo xamante nii nee naa la politique réew ci lay dox di ko xamante ne ni wax dëgg yàlla fii la juddoo fii la yaroo fii la fekk baax fi la ko baax fekk di ko xamante ni nii day dox ci mbégte yi doomu aadama yi waaye non seulement di dox ci jafe-jafe doomu aadama yi xale bi way na ko léegi-léegi bu ñuy wax gaynde jàmbaar fit jom àddëgga ñëw fii nag nga xamante ni nii mooy makki Sall makki Sall maa ngi lay nuyu maa yaa ngi am jàmm ci la nekk nii jërëjëf ci la nekk nii wax dëgg yàlla tey nag émission bi dafa laa li tax ma laa demee mooy problème bii nga xamante ni nii géejawaay ñu ngi koy dund di am tiis ak ak njàq ak ak jaaxle kii nga xamante ni nii waa nag lu jëriñ nii mooy sunu mooy sunu président de tous les sénégalais ah tey indi na ay bagages ni ne téew bi ah tey dafa bëgg a look moom li ne ci téew bi daal ah tey tey da ko bëgg a génne Macky Sall waaw tey dafa mel da ngaa waajal sa bopp waaw léegi dem naa ba xool waa ministre de l'environnement xool nañ ko xool nañ ko nee nañ li fi nekk bu nekkul rabu àll tamit dina nekk loo xam ne du leen jaaxal la hmm. te bu ñëpp dawee dem si dem ci pale bi ci sama kor nañ waaw léegi nag li ma bëgg mooy hmm. jéem a fexe ba xool parce que lii mosoon ma am ngii ju lon ngii ju lon mooy fi ma juddoo laa lu mel lu mel ni daanaa ko dégg foofu mais bu ñu jëlee ndox mu tàng rek hmm. ak bant soo ko ci ruuxee nii rek da ngay gis mu daal di yëngatu nga xam lan la lii du lii du lu garaaw. Ah. non non man xool naa ko ba xool nekk lu garaaw. yàlla baax na waaw yàlla nga ci am ndam. waaw ñi fi jaar ñëpp wax dëgg yàlla am na ci ñoom njàqare waaye yooyu yàlla ci yàlla may ndam kon loo bëgg def nii. loo bëgg def nii. dama ko bëgg xool dama koy lukkut. lukkut ko waaw. ndeysaan laa ilaha illallah. même ma tuuti ma ñëw. yow billaahi am nañ ci yow yaakaar si sa ngaari. xaaral toqal mu tuuti. damay koo tuuti. jërëjëf yàlla sunu borom loo xamul xamoo ko loo xamul xamoo ko xamoo ko xoolal lii rek bu dee luy rey la bu dee luy rey la wala luy gaañ bu ma yóbbu man kese na yóbbaale gars yi Idrissa Seck Sonko ma dëkk ñaaw gars yi man la léegi du dara de dara du dara du eh gënal fii ngay font yow Macky waaye dama na la yow mii daanal soo génn laa ma dugg de loo xëcc foofu loo xëcc sama dugg sama mën nga ko ah eh, génn laa wax man li yëngalu ma. Macky Amadou. allo. Macky. ah. Amadou. Amadou man. ah tur boobu. Macky. Macky. Sall. Macky Sall. yow la suran yow buddi ma daa fa ñaafa de tam de kaw jingo. Macky. lan la. xam naa lan la gis naa ko. gis nga li ne fii. waaw jërëjëf yàlla suñu borom. neewoon naa la bu la neen di ko génne rek dina ko génne. laa ilaaha illallaah waaye tàccu leen xale waaye tàccu leen suñu président de la république waaye. daa nga xam ne man maay Macky Sall gis naa ko. ah. waaw am nañ ci yow yaakaar de am nañ ci yow yaakaar de. xoolal jàppal ma lii rek moom. ma jàppal la rek jàppal ma lii jàppal lii ci ginnaaw da may jàpp ci ginnaaw. ma téye la ci ginnaaw waaw téye ma ci ginnaaw rek gis naa ko. téye ma gis naa ko. gis naa ko téye ma ci ginnaaw. mu mmh. ngi génn gis nga. ma. bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma ah? bàyyi ma wala bàyyi ma. bàyyi ma bàyyi ma dama lay won